esguicha. jërëjëf yéen kay ak Mohamed Ndiaye ñu dikk dal ci gis-gis ponk bi ñu fas waxtane tay nak di fitna gi nga xamni ma ngay am fofu ci Mali ma ngay bëgg yag nak euh, te imam Diko, ak ñi nga xamni ñoy mouvement M5 euh, sumbuku mu nek xex bo xamni dal ma ngay gën di wéy euh, te bu lawee itam mën naa gëna indi ay jafé jafé lool mo waral ponk bi ñuy waxtane tay di ci and ak Abdoulatif Aydara mom moy directeur général bu Centre africain d'intelligence stratégique.

waaw professeur laaj bu njëkk bi rek mooy ñu bari dañoo jàppoon ni bi nga xamee ni euh, IBK mu Ibrahima Boubacar Keïta daje na ak Imam Dicko foogoon nañu ne lu bari daal ci fitna gi dana dana dana dana dana jàmm dina ci am waaye dañoo gis ni teguñu ci ñaari fan ñett daanaka euh, ci la gën a tàkk loolu ban jàngat nga ci mën a def. Euh, xam nga bi Imam Dicko laataa na jóg mook politiciens yi di song IBK dafa fekk dëkk ba ci boppam. Mhm. dafa nekkoon ci coono gu méttee metti ndax mouvement terroriste ya fa nekk. ak problème bi nga xam ni am na ci diggante pël yi ak bambara yi ak dogon yi muy problème communautaire boo xam ni islamique bi aussi dafa ñëw laxasu tegu ko ci. donc bi M5 ñëwee euh, mouvement M5 nga xam ni dafa boole Tico ak parti politique yu bari yu ñëw laxasu ci ginnaaw Tico. Mhm. Euh, dañoo ñëw ñoom yokk ci xam li ko war. Mhm. c'est-à-dire seen première manifestation dañ doon réclamer ne président bi na démissionné. Mhm. mais bi ñu demee ba yegg parti politique yi seen bopp léegi ñoom ñoo téye ni président bi na démissionné mais dikko mi nga xam ne moo jiite mouvement bi. moom téyeetul ni parti ni président bi na démissionné moom yeneen condition de posé may dissolution assemblée nationale formation gouvernement de transition yooyu la ëllëg yi mais teg a jiitalatul démission du président. donc euh, peut-être loolu aussi ba mu gisanteeg président bi peut-être résultat la ci mais en tout cas dikko moom jiitalatul euh, démission président te dikko doole ji moo ko yor. donc tant doole ji mi ngi koy yor ba léegi nii moom. tegul comme condition président. ndax ndax doole ji mi ngi koy yor ba léegi ndax ndax doole ji mi ngi koy yor ba léegi. ah oui mu ngi ko yor ba léegi parce que ñeneen parti politique yi dañoo ñëw rek greffé wu ci. Mhm. maanaam tey xam nga politique. politique du du amul démarche parasitaire mhm. booy def par politique parasitaire baaxul maanaam politique boo xam ni da ngay fekk benn événement rek nga langaamu ci bu booba fayee nga jël beneen événement langaamu ci bu booba fayee nga jël beneen événement langaamu ci loolu moo am Mali lii am nii c'est l'échec de l'élite politique mhm. parce que dëkk boo xam ne mhm. élite politique bi ñu ngi doxal ni ñu war a doxalee imam waaw du du ci am wàll d' accord c' est léegi léegi léegi léegi boobu est ce que loolu mënul jur leneen itam parce que ku wax imam wax euh, di dugg ci wàllu wàllu diine di nga war a dugg ci leneen ndax loolu itam du tax ñu jàpp ni moom di ko moomu am na lu ko laalale ak ñeneen ñu ñuy wax ay islamiste wala ñeneen waaw di ko effectivement am na lu mu bokk ak islamiste mooy euh, ñoom ñëpp Arabie Saoudite la jànge nekk ay wahabit mm-hmm. te boo demee Mali presque ñoom ay sunnite lañu de rite malékite majorité ba dikko waaye dafa am dikko lu dafa am lu particulier lu nekk ci dikko mhm. mooy ni wahhabite la mais dafa bokk ci catégorie bi ñuy wax les wahhabites quiétistes mhm. wahhabite quiétiste mooy wahhabite yi nga xam ne bëgguñu violence mhm. même ku sàcc ñu dagg sa loxo sax bëgguñu ko donc dikko ci yi la bokk moom dafa contre terrorisme violence bi ñu def malgré le fait que nag ñoo bokk wéeruwaay ci diine ñoom ñëpp ay xanbat lañu ñoom ñëpp ay waxatik lañ mhm. donc loolu moo tax ba euh, dikku pour lëkkaloo ak ñoom parce que violence bi ñu nekk moom d' accord ci daf ko mës a mhm. dénoncé nag. même bien avant lii daf ko mës a dénoncé. wax na ko démb sax wax na lu jëm ci wàllu violence yooyu ñu ñu bàyyi ko euh, léegi kon lan lan moom lan mooy ban ban intérêt la am moom ci xeex bi bu fekkente ni waxul na président bi démissionné kon amul moom benn ambition donc lan lan mooy ci intérêt am tey ci xeex bi moom Imam Dicko. ku ci ñu fal EBK en 2013 la bokk.

parce que mhm. politiciens yi mënuñu koo mais parce que politiciens yi amuñu programme. d'accord D'accord, mais kon professeur yow su suma la déggee mooy eh, kon ñu délogé kii di IBK ci dikko la des fi mu nekk nii ndax wax nga ma léegi ne doole ji mi ngi ci moom. waaw loolu moo am tant que dikko waxul ni délogé leen ko duñ ko mën a maintenant opposition bi rek ñoom duñ ko bëgg a déloger. waaw mais léegi léegi léegi ani ani ani ani kaaraange gi ani armée bi dans tout ça. parce que gis nañ taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko jàmmaarloo nañu ak ñi nga xam ne ñooy askan wi lu bëri itam am fa ay yàqu-yàqu mais boo ma waxee ni ma par exemple tey su di ko waxee ñu ñu jëlee ko fa ñu jëlee ko fa ani ani karange euh, kii di IBK. bon ma waxee la ko noonu mooy ni euh, ko jógee mais damay marché sur le palais. Mhm. armée bi mën na rey ñaari téeméer wala waaye danañ yegg parce que nit mhm. xam nga dafa am bu jógee. Mhm. ne président bi def doo fi fanaan peuple bi laa wax. dëgg loolu moom dëgg la. peuple moom loolu moom dëgg yëpp. waaw loolu moom dëgg la. peuple mhm. amul amul benn armée boo xam ne attan na peuple mu rey ñëpp. Mhm. parce que pour donc mhm. nit ñi dañu def attention léegi. waaw looloo tax ma ni la. di ko bis bu jëlee décision. waaw IBEPA waaw ànd ak nitam yi wuti pale waaw danañ ci rey ñu bari waaye danañ njëkk pale. d'accord léegi yow am na sax loo xaw a junj léegi ci sa biir euh, wax waaye man li ma bëgg a xam rek mooy ku xam Mali ci jamono yu bari xamoon nga ni au moins euh, démocratie lal war dafa wax dëgg yàlla tey bu ñu demee ba lu mel nii di fa am lan nga jàpp ni moo ko indi ak euh, lan la mën a jur pour Mali. waaw problème bi mooy gouvernance la xam nga problème de gouvernance moo am Mali surtout la gouvernance sécuritaire. Mhm. Les sais, qui ont été a à faire des qui ont été forcées à faire des choses La ont été forcées à faire France. Oui, le ministre des Nations Unies. Les mhm. populations de type comme nous ont digéré tout le monde, mhm. malgré le fait que nous sommes en Mali, nous ne sommes pas les train de faire Parce que nous sommes en train de faire Le ministre, 13 000 soldats à 2 000 policiers, 15 000 hommes. Mhm de jël 4 500 hommes, G5 Sahel 4 500, plus de 25 000 hommes ñu ngi nekk Mali yore seen i njànnaay contre rek 2500 terroristes yoo xam ne mënuñu leen faa ba mhm. la population beaucoup de population du soulèvement c'est un soulèvement contre la France mhm, mhm. C'est waaw soulèvement contre la France parce que pour nous, IBK moo fi la France. France ci hmm. boppam. Hmm. Euh, la gars yi mënatul di digérer sa ah, présence au Mali. parce que dañu dañu ne. inutile jarul du fay nekk d'accord ko jëkk. d' défendre ñu leen. d' accord dama dama dama dégg tay rek ci ci ci euh, actualité bi ku melni maître Amadou Sall am lu mu wax par rapport ak Mali mu japp ni Mali bu amé jafé jafé jafé jafé boobu mëna na wal ba ci Sénégal ak ci yenen réew ndax japp nga ni loolu mëna nek non contexte yi bokkul. Mhm. contexte yi bokul li am Mali ak li am Sénégal du ben Sénégal.

Mhm. voilà mais contexte ce n'est c'est pas la même chose. Mhm. d'accord euh, jërëjëf euh, professeur Abdoulatif Aïdara, nous gërëm le bu baax euh, di jox rendez-vous xam naa ci beneen jamono bu ci yàlla àndee jërëjëf. barka ba jàppandi na barka maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mbaa sant yàlla bu baax Pape. barke tolluwaayu Mali tey lan la la inspiré li nga fa gis ndax lu doon raam la ba ñu jàpp ni yàgg na ci ñag ba wala lan nga ko gisee tey. waaw Pape lu doon raam di jëm ci ñag bi la. Euh, lu fa xew malheureusement képp koo xam ne bàyyi woon xel euh, ci situation Mali bi warulaa bett bu baax donte peut-être niveau de violence bi ñu nemmeeku fan yi ak euh, bakkan yu rot yi loolu moom jéggi na dayoo léegi nag. Euh, li ñuy ragal moo que mbir mi gën a sakkarnase parce que ñaar ñi nga xam ne principaux acteurs yi tey muy imam Dicko te mu euh, boot euh, mbooloo bu takku ak IBK dialogue bi ci seen diggante dina dina jafe ndax violence bi fi mu fi toll mhm. man wax naa ko léegi professeur euh, Latif Aidara man li ma jaaxal mooy dañu dañu gis seen daje dafa yàggul euh, kii di IBK recevoir di ko ñu waxtaan euh, jàppoon nañu ne après jàmm muy accalmie dafay dellu si waat foofa ca Mali loolu amul lan nga jàpp ni moom moo moom moo moo moom moo tax ba jàmm mënul mënul dellu si foofu. xam nga un mouvement insurrectionnel su xasee ba départ. acteurs yi ci seen bopp mënatuñu maîtriser dootuñu maîtriser le trop ci ci situation bi day am toujours loo xam ne débordement la mhm. boo xam ne kenn du xam fu mu jógee mhm. soit ci force de sécurité yi soit ci jeunes yi mën mhm. nga leen jéem a yemloo fenn mais ñoom ci seen xatar ak seen euh, euh, mer mën nañ dem ba def loo xam ne euh, dafay dépassé situation bi te yaakaar naa ne tey ñaari parti yëpp foofu lañ toll parce que xale yi bi ñu demee toog assemblée nationale après ñu daal di dem dugg. ca rajo ba euh, taal ci rajo bi foofu. Mhm. foofu la affaire bi débordé. Mhm. mais leneen lu tiglu li mooy IBK dafa mel ni ci ñaari fan yu njëkk euh, situation bi da ko xawoon dépassé. Mhm. mais après dañu gis mu mel ni dafa gànnaayuwaat et surtout. Euh, ah, waaw nuru na ko moom ci week-end bu week bi ñu génn nii. mel na ni dafa décidé ci jàkkaarloo ak ñoom. surtout force yi ñu utilisé force antiterroriste yi la ñu muy ay troupe d'élite nga ne ñoom c'était pour ñu faire ak jihadiste yi mhm. mais gis ñoo dem euh, songu euh, domicile euh, mosquée bu imam bi ko mhm. nekkoon ay jeunes ñëwoon dañ koy aar foofu mhm. foofu la mbir mi def débordé Et soo xoolee tamit tey am na quartier ba ko bu tudd Badalo épicentre violence donc est-ce que tey imam bi malgré appel au calme bi mu def ak traite autour yi na yaakaaruma ko. Mhm. Euh, IBK aussi ci benn loxo dafa mel ni day lâché bi la mooy bi mu décidé dissoudre cour constitutionnelle bi nga xam ne tooke bi lu ci ëpp ci ñoom la ñuy jógee parce que ñoom ñoo mujjee invalider yenn candidat yi mu feggoog yeneen problème yu bëri bëri yu ñu fa wax yi mooy problème sécuritaire bi problème communautaire bi problème gouvernance bi euh, corruption. taxawaayu mhm. Karim Keita loolu mhm. aussi il faut ñu tudd ko Karim Keita ni mhm. muy doxalee Mali mu ñuy rappelé ñun Karim Wade tout à loolu yëpp moom moo tegu tey mu nekk bombe moo xam ne dafa explosé ci kaw euh, IBK communauté internationale bi def nañ communauté conjoint pour appeler parti euh, à la retenue waaye euh, ba su toll nii gisuma tey ban solution moom mën a am Mali d' accord mm. mais Barka man li ma bëgg xam mooy lan moo fa war a indi sax lu ni mel bu ñu demee ba euh, leadership bi euh, ñi nga xam ni ñooy imaam yi di ko jël euh, mu nekk lajj boo xam ni politique yi lajj nañ ko lan nga koy yaakaar da nga jàpp ni ni ko professeur Latif Aidara waxe maanaam dañu njort ni rek loxo France dafa nekk ci ginnaaw UBK te ñoom ñu doyal ci France moo indi lu ni mel lan nga jàpp ni moo ko indi. man li ma jàpp mooy c'est pas simplement la présence Euh, dëgg la euh, am na ñuy manifester toujours naan euh, France nañ génn foofu depuis bu ñu fa duggee dañu gën a aggraver situation bi mais principalement mer bi c'est des solutions yoo xam ne ci waa ji nu mu téye nguur gi la. IBK dañ ko joxaatoon mandat alors que vraiment premier mandat bi convaincre woon bu baax. Mhm. mais au bout du deuxième mandat suñu ñu gisee ne problème bi dafa gën a law et surtout bu kenn négliger benn aspect mooy aspect communautaire bi le conflit dans le mmh, centre mmh, mmh, bi nga xam ne entre dogon yi ak eh, dañ dañ doon rayante foofu dafa jox Mali prémisse guerre civile prémisse guerre civile boo xam ne moom moo tiital tey askan wi greffé wu ci yeneen problème yu bëri ay problème euh, sociaux ah, Mhm. Pape nga baal ma parce que dama may ay écho ci sama li may wax li mo moo euh, non non c'est bon ma ñi ngi lay dégg de <laughs> fii moom ah, écoute bi baax na waaw ah. écoute bi baax na waaw. donc problème yooyu yëpp je pense ñoom ñoo dem ñu tegloo. Mhm. ba ba mu jur lii mu jur nii et fondamentalement question de leadership la. Mhm. président africain yi ah, dañu war a xoolaat seen bopp bu baax. muy Mali muy Burkina euh, wan wan nañ laj boo xam ne ci ci ci gérer d' abord seen territoire. gérer seen force de sécurité gis nañ ne euh, doxul. te dañu bàyyi xel aussi ci quai d'Orsay français yi dañu defoon benn note ay diplomate mhm. ñu tuddee ko l'effet pangolin bu Covid bi duggee. Mhm. ñu ne soo moytuwul euh, ñuy astu gouvernement France ne ko état sahélien yi ngay jàppale yi soo moytuwul yu bi dinañ daanu ndaxte crise Covid bi. dafa gën a ñëw xawi seen sutura wan dèjà laj yi ñu lajoon ci yeneen euh, secteurs yi mhm. soo moytul lii moom moo leen di yóbbu malheureusement bi ñu ko waxee ak léegi motul ñetti weer et gis nañ Mali mbir mi mu ngi commencé foofu d' yaakaar nga mu yem Mali yaakaar nga yenn réew yu mel ni Sénégal mucc ci xam nga euh, nañ ñaan yàlla mu mu sax euh, coow li fay Mali parce que kenn amul intérêt que sous région bi daal di daal di takk mhm. mais li ñu nemmeeku mooy lépp lu xew ci benn pays africain soo moytul tôt ou tard question de temps lay doon mais mën na yóbbaale yeneen pays africain et bu boobaa euh, kaawu Mali bi su lawee ci sous région bi euh, du baax ci kenn. ba mu mel ni printemps arabe ba mu mel ni li ñu doon wax printemps waaw waaw D'accord. accord jërëjëf euh, Barka loolu yàlla nañ ci yàlla musal euh, ñu gërëm la bu baax mu nekkoon Barka Ba ak professeur Abdulatif Aydara, Aidara ñoom lañ doon àndal ci gis-gis muy point de vue euh, ñu jagle leen ko tolluwaayu xeex ba am ca Mali fan lay mujjee dégg ngeen ci seen xalaat yem mbokk yi ak fi ñuy tàggoo.